di wax mbokk yi tey yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, bala ñoo bala ñoo jottili kàddu gi euh, madame la ministre soxna Fatou Diané euh, mbooloo mi ak sëñ Maxtaar ci boppam daa am lu mu ñaan suma ma noppee ci kàddu gi. doomam jii di sëñ euh, euh, Basiiru Xaadim Awa Ba mu am ay liggéey ak taxawaay yu am solo yu muy def ci daara ji muy ko am kóllëre mu jokk kóllëre gi baayam amoon ak sëñ Mat Saxiir amoon kook sëñ Maxtaar mu am ay ndimbal ay sek yoo xam ne nii yuñ ko jox la yum laaj mu joxe ko ci sa kanam ci gàtt bu néew nga doog a dem ci sëñ bi mu defal la ñaan waaye suñ noppee tamit dañu ñaan mbooloo mi ñu toog ndax wax ji day continuer ba tisbaar di jot gannaaw ba nuyee ñi fi nekk ñu fi teew ñëpp ci turu sëñ Maxtaar di jiital ci nuyoo bi nag euh, monsieur Macky Sall président de la république di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam ci daara ji waaye taxawaayam tamit ci daara yi ndax yaakaar naa ne li mu mëbët bëgg ko su fekkee ne am na dana bari ay jafeñ-jafeñ yoo xam ne nii danañ ko teggil daara ndax su fekkee ne dafa jël ci alal jin daan nattal ministre bi yore wàllum njàngale mi mu jël ci six milliards jagleel ko daara yi am ca loo xam ne ni lépp dañ koy jënde ab dund am ca xam ne ni lépp dañ koy dollawaat ci daara yi loolu dama ne moo ko fi jëkk a def kon loolu ña ngi koy sant di ko ci gërëm di ko ñaanal yàlla di nuyu tamit bëgg nga jottali nu Maxtaar ay nuyoom ci premier ministre monsieur Amadou Ba ci taxawaayam ci daara ji ak jëfam ci daara ji moom daa jàppe sëñ Maxtaar waajur waajur la ko jàppe jamono ju nekkit ci ku luñ yëg ak ku yëg ak ku yëgul lépp lu man mu ngi ko loxaam mu ngi koy dugal ci daara ji te loolu ndégul bañ def ko premier ministre rek mu doog koo def naka ni si la daaw ndajem daaw mi téeméeri nag la jagleloon daara ji nag xale yi nañ tàmbali fukki fan balaa ndaje mee ñëw ñu leen di bëggal di leen ak ak ceeb ak diw nañ bëggal xale yi balaa ndaje mee ñëw ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ñu ngi sàkku ci soxna si mu jot suñu nuyoo ci président ak Amadou Ba bi nga ne mooy PM ak mboolem membre yu gouvernement bi rawatina ak nag Cheikh Omar Anne ci taxawaayam ak ci jëfam ndax ñëw na fii ñuy war ubbi lycée bu bees bi mu ñëw ci daara ji visite daara ji yëpp fépp mu dem fi jox nu ay xalaat ak ay orientation yoo xam ne nii luy jëriñ daara ji rek la waaye jël ay engagement tamit ci ne daara ji éducation nationale un million la ko daan jox mu ne ko dana ko jox quarante millions di noonu la dana dana ko jagle ci biti bi quarante quarante millions kon nag loolu fokk ñu soo teewee dafa mel ni gouvernement bépp teew nañ kon danañ la ko jottali wax la ko di nuyu tamit mboolam délégation bi nga àndal ñëpp rawatina nag soxna si baax si madame le gouverneur ñu di la seedeel na taxawaayam ci daara ji taxawaay bu rafet la taxawaay bu mucc ayib la lépp lu mu am lu man ci wàllu man-man ma ngi koy yëkkati di ko dimbalee daara ji waaye bépp xalaat bu mu am tamit ma ngi koy def ngir dimbali daara ji ñu di la xamal ne madame le gouverneur santal mboolem chef de service yin soqal yin bokkoon séqal CRD boobu ñu doon def ñoom ñëpp kenn ku nekk la nga waxoon def nga ba def lu ko raw jarul may tudd ndax soo limee ak waxtu bi dafay guddi waaye nga xam ne chef de service yëpp def na li ñu a def benn desul di nuyu tamit monsieur le préfet ak suuf préfet bu kokki ci taxawaay moom it di ko rafetlu ak monsieur le maire ak chef de village bi ak mboolem kilifa yi fi nekk ah daaray kokki nag daara joo xam ne sëñ ma saxir moo ko sosoon 1939 ci ndigalal sëriñam kilifaam maam Cheikh Mbay mu ne ko demal kokki ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla loolu moo tax daara ji amuñ sañ-sañ ci fayeku te sëñ ma saxi daan wax ne su fekkoon ne daara ji day man ku d'accord naa ci ci daara ji fayeku waaye nag su fekkoon ne ñëpp dañ doon fayeku doomi ñi amul fan la ñuy jànge te jàng nag ñëpp a ci am àq ñëpp a ci ñëpp ci am àq loolu moo tax nun amuñu sañ-sañ ci fayeku loolu tamit sëñ Mat Saxir 1939 bi mu fi nekkee bi mu ñëwee kokki tamit suñu mbokk yu baax yi muy njabootug maam Maxtaar Numbe ñoo ko dalal jox ko fu dëkk jox ko ay tool jox ko seen njaboot di ko jàppale biir ak biti muy bàyyi ma debba jamono jooju ànd ak rakkam bàyyi sëriñ ak ak maama yal na yàlla yal na yàlla yërëm leen ñoom ñëpp loolu dañul soxna si loolu dañul ba jamono ñuy toll suñu kilifa ñun ñëpp muy sëñ xabaan te suñ ko nuyoo nuyu nañ kilifay diine yi ci tund bi yëpp di rafet moom it di rafetlu taxawaayam di ko ñaanal yàlla mu gudd fan te ànd ko wér tam jotti lu ñu tamit suñuy sant ak suñuy gërëm ci waa kokki nun mënuñoo fay waa kokki nun ñi ñëpp taxaw waa kokki ñoo ñu doon dundal ñoo ñu yoroon ñoo ñu doon tette ñoo ñu doon muñal bañ agsi fi ñu nun ñëpp bari na ci mbooloo mi toog ay docteur a ci ay commerçant ngi ci ay ñu am ay doktora ay ku nekk ngi ci ñoom ñëpp seen njëlal bàyyi yor leen woon waaye njëlal waa kokki moo leen yoroon kon ñooñu amuñu seen fay dañ leen di ñaanal yàlla waa kokki la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka waa Madina dimbale woon ba am pay gañ am suñ borom suñ borom yal na nga wàccee daraja joojee yal na nga ko jox kokki ak lu ko wër ku dëkk kokki ak lu wër sant nañ leen gërëm nañ leen te ba soxna si tey lañ gën a futteeku di def seen alal muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw. ñoom ñoo jëkk a formé ab mbootaay yal na yàlla yërëmal ko muy soxna Adja Soda Wade di dajale ay millions denc bi mu fi jógee tamit njabootam ci jiital soxna Rama Ndiaye ànd koog waa kokki ak mbokkam ba biig lañ ko mujj andiwaat kon waa kokki dama ne suñu rayoon suñu bopp jox leen mënuñ leen a fay. waaye nag yàlla am na fay yal na leen fay gën di fay di fàttali tamit te jotaay buñ taxaw war nañ koo fàttali ndax sëñ ma saxiir waa kokki bàyyi wuñ ko waaye daa amoon ñu baax ñoo xam dañ koo sosoon jàppali ko di ko dimbali def seen alal def lépp luñ mën ci njiital suñu bàyyi allah ci at xulle nga xam ne àggoon na ci daara ji foo xam ne dane woon sëñ mat saxir soo ne ma woon bàyyil li ngay def du ko ba ndax deful ma lu sama bopp laay defal yàlla na ko yàlla fayal ànd ak suñu bàyyi Alaaji Maxari Géey Alaaji Mbatawas Jóob ca ca Kébémer Alaaji Moodu Saadu ca Kébémer bàyyi Alaaji Géey ca Louga bàyyi Alaaji Mbat Sëli ba Silli ca Louga ba ah, ah, bàyyi ah, nuñ ko waxati alaaji Moodu Jaxate ca Ndànd Cheikh alaaji Cheikh Diop ca Thiel ma xam maa ko alaaji Moodu Géey ca Kaolack ballaloo ca Kaolack sama yaay sama yaay soxna Fatou Fall Dieng Assane ci kokki ànd kook nag fekk nag am na ku leen ci jiit sax nag muy bàyyi Tamsir Diouf mi nga xam na nii moo doon wala sëñ ma sax te dëkk Bargny jëkk fi andi dong bu jëkk Kafeer ànd kook waa Bargny gépp ba léegi. seen njaboot njaboot li lu mu mën ci doon jamono ju nekk waa bari ñu ngi dugal seen loxo di jëf yan na leen yàlla fayal te lépp mu ngi jaar ci bàyyi tamsiir ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ni wax ko ci waxtu wi du fi xaj rawaate naa nag suñu bàyyi Alaaji Bakari Géy moo fekkoon daara ji mu nekk ay sàkket ay néegi ñax yu rab mu ñëw tabax daara ji def ko ay étage karale ko andi ci ndox andi andi ndox andi groupe boo xam ne bii gannaaw bañ daan taxani daan taal soxna jaane ku la wax ab taalu jàngu dam ko xam ndax yow sa kër maam daara la jaane moom daara ci moom la fekk baax ci moom la yem te li ma wax xam nga ko bu baax ku xam tamit daara ci cosaanu réew mi kenn mënu koo tudd te tuddoo jaane mu ñëw nun dindi loolu tabaxal nu ay taax yoo xam ne nii nun amuñ ko suñu kër ndey amuñ ko suñu këri baay andil nu groupe muy taal di ñu niital ñuy jàng di ci niitu mu andil nu ndox këccal nu ndox dañ daan roote di yenu mu teggil nu ko yal na ko yàlla fayal la yonent la la yonent bi waxaloon Seydina Ousmane amuñu sañ-sañ ci wax ko waaye nag mën nañ koo ñaan yal na ko defal alaaji Bakari ak ku mel moom mu ne maa darra Ousmane maa faala baadal yawm bis nag tey Seydina Ousmane amul lu muy mën a defati lu koy lu ko tee dugg àjjana loola tamit yal na dal Alaaji Bakari ak ñam bokkoon seqal ñëpp. di la waxal na it Alaaji Bakari Gaye moomu bi tamit dañ ciy sant yàlla Alaaji Baara Mbuub ci la bokk dama ko fàttee tudd. dégg nga alaaji sëñ Morlo ca Caaray ca la bokk ji daam sekk ca ca ca Dakar dëkk cekkeen sam-sam ca la bokk ñoo ñëpp ci lañ bokk waaye bi mu demee tamit yàlla baaxe na ay doomi daara ji ñoo taxaw lépp luñ mën di ko def ci daara ji te loolu kenn jiituwu ci sëriñ bu ba léegi xale yi lépp lu ñuy njëkkee ci Cheikh Lo Diop lañ koy jële par weer dëkkul ak yeneen dimbal ak suñu mbokk mu baax mi El Hadj Abdou Aziz Sy la bëggul koo tudd day du wax du feeñ fen waaye su jëfee rek ku romb rek xam ne fii gaynde fi jaar te madame la ministre mu ñu waxal la ne ndox mi nga xam ne. suñu mbokk suñu xarit yal na ko yàlla fayal muy alaaji alaaji Alioune Souané moo ko ta moo ko gasal daara ji ab forage daara ji di ci naan am ci lu bokk ci ab xaaj ci dëkk di ci naan dëkk yi wër tamit dëkk yi bari di ci naan dañoo dem ba yàgg forage boobu néew doole ndax ñi ci xëcc dañoo bari ñu ne ñu ne sëñ Maxtaar teeñ koo dellowaat yëmale ko ci daara ji mu ne on oh, on oh, lu am nun ñoo waa kokki ak li wër kokki ñoo koy bokk nañ continuer nam daan joxe yàlla dana dikk ak mbiram alaaji Abdou Aziz moo dikk gas fi beneen foras fecca ndal la ba yàlla defee ba ndox mi génn muy ndox mu neex sax faf léegi xam liñ ci fas yéene fas yéene nañ cee bay xale yi li ñuy jëfandikoo ci ay légumes yëpp nga xam ne ni suñ tiimatee añ wala ñu tiim reer di reer wala ndékki di ndékki danañ xam ne lii seenu ñàkk ñoo ko ci def ñu jàngale ci liggéey teg ci te Abdou Aziz moom du man du sëñ bi du doomam du soxnaam du mbokkam du kan ku xam ñaata la ci def jomb na ko kenn du xamul ñaata la ci def ñaari sett doo la ko defal benn ca ndàll la benn fii kenn xamul waxul kenn ne lii laa ci def kon Abdou Aziz moom it ëllëg moom ak ñu mel na moom ëllëg la nga xam na nii moom la yàlla di fayee saxaaba ya di leen fayee àjjana yal na ko ko yàlla fayee yemuñ ca am tamit ci njaboot gi ñi leen jóg allah ji at na mii gis nga gis nga résidence bi moo ko tabax tabaxaat na beneen fële démb démb la jox caabi barki démb la jox caabi ji sëñ bi te na ko maa ngi ñëgaat foo rëddaat rek maa ngi ne nga rëddaat maa ngi nin nga joxañ am na foo ma joxañ rek ma dem foo ma joxañ ma dem te it naa la xamal leen yorul alal ji de waaye nag am na fit yaakaar na yàlla doyloo na yàlla madame la ministre da ngaa ñëw ci sa kër li fi dox lépp da nga ko war a xam njaboot a fi nekk muy moom noonu mu amee jamonoy feebar bi bi feebar bi amee dëkk bi am lu leen metti lool ndax kale yi ku daan añi ji ci kër dematoo ku daan reere ci kër dematoo ñëpp ñu toog ci daara ji biñ toogee ci daara ji sëñ bi ne leen dañ toog te jàpp ci yàlla ñu toog kalaat waaw kale yi suñ demul fenn kenn añul fenn kenn réerwul fenn dépense bi lan lay war a ci ñaar fukki fan yéen njëkk jàpp su ma juumee oustaz wala baay ma du ngeen gàggante ba ñaata lañ njëkk a joxe ñaata lañ joxoon ah 42 millions ñu ne léegi loolu ñaar fukki fan yooyu 42 millions moo yor xale yi Abdou Aziz daan may woo téléphone na ma li ngeen doon wax fan ngeen ci toll. ma ne ko 42 millions day lañ wax moo yor xale yi ñeent fukki fan yi mu ne def naa genn wàll gi ma ñëw fi ñu doon réunion wax ko bi may waxee bi ma daa tan àggal mu waat ma téléphone ne ma def naa lépp ci jamono jooju nag biñ jàllee loolu te xale yi kenn demul fenn ci la sëñ bi ne waaye nañ jéem nañ jéem li nga mën jéem taxawal loo xam ne nii xale yi danañ ci mën a jëfandikoo ndax sëñ mat saxir suñ xale bi jëkk am bourse ba dem jàng université islamique bu Médine bañ ñëwee vacances da na laaj na leen nan ngeen di añee ak nan ngeen di reere ak nan ngeen di ndékkee ñu ne ko dafa am foofa dalal lu ñu naan ab restaurant restaurant booba nag su añ jotee dañ naan heure sàngam lay ubbi ba heure sàngam reer noonu ndékki noonu mu ne xanaa loolu da ku ko amoon dana baax ñu ne loolu xalaat boobu sëñ na taxir amoon ci defar restaurant boobu nañ ci dugg yàlla rek a fi nekk bañ amee xalaat bi am suñ doom ju baax muy doomi sëñ Mor loo di suñu mag di suñu lépp muy doom di naan daam ñu wax ko ko mu ne a ah, man de mën naa leen a defaral plan bi ndax am naa sama benn xarit boo xam ne bii ab architecte la sëñ Maxtaar na ko na ko defar mu defar plan dikk bi mu defaree plan bi ba dikk sëñ Maxtaar ne ko luñ ci luñ la ci luñ ci laaj mu ne ko luñ ci waf maa koy def maa fay plan bi mu yëm yëmul ca loola mu ne waat sëñ Maxtaar maa ngi lay waatal ci yàlla ne lépp loo xam ne nii même ndéefur la maa koy joxe muy maçonnerie muy carrelage muy peinture muy électricité muy lépp yow nag loo am ci ciment ak kule ci dimbali na la ci dimbali restaurant booba tey yaakaar naa ne ñu ngi ci ay finition karala nañ ba pare te dañoo bëgg xale yi nekk ci condition boo xam ne bii ay conditions yoo xam ne nii yu mucc ayib lay doon ñu nekk université nekk feneen nekk feneen nañuy jëfandikoo noonu ñuy jëfandikoo noonu kon suñ doom jooju daamit ñu ngi koy sant di sant njabootu sëñ Mor gépp goo xam ne gi su daara ji waxee rek pare nañ ko joxe seen bakkan yal na leen yàlla fayal ñoom ñëpp wuñ suñ doom it fàll buur mi nga xam ne nii moom it gaynde la ci ndax baas bii nga gis nii Omar Sow moo ko daan tax moo ko daan fay te kenn mësu ko yëg yal na yàlla yërëm ko waaye bi mu demee da ren njabootu sëñ Mor ñoo takku ne suñ yoon nekku ci lool ak lu muy naaj muy taw danañ ko defar ñoom ñoo ko fay te liñ ci fay ci ay millions kenn xamul nan la tol kon yal na leen yàlla fayal delluwaat tamit di nuyu mboolem ñi fi teew di beral ci nuyoo nag suñ mbokk yu jógee Gàmbi Alaaji Ali Mbay ma ngi ak ñoom di rafetlu seen taxawaay di nuyu tamit ñu jóge Mali Ibrahima Ka léegi wax na fi ak ñu jóge Guinée Conakry ak Guinée Bissau ak ñi nga xam dañoo jóge Burkina ak ñu jóge ci senegal yépp nag moo xam Tamba la moo xam njaambur la moo xam saalum moo xam bawal la moo xam kajoor la moo xam kafeer la moo xam fum moo xam waalo la gox yépp ñëw nañ sëñ bi nee na gis na leen sant na leen gërëm na leen yal na yàlla dolli leen te teraanga ji yal na gën a sax di nuyu tamit kilifay diine yépp di ci jiital ci nuyoo bi seriñ Mountakha délégation bi ñëw na ak kilifa diine yi ci réew mi yëpp ak waa Canaba suñ mag Cheikh Ibrahima Seck ma nga nele nga xam suñ paree moom mooy mujj mooy def ñaan di nuyu ñëpp bàyyi wuñu kenn kuñ tudd ak kuñ tuddul yàlla moom xam na di nuyu tamit mboolem mbootaayi lislaam yi fi teew. association yëpp nag yi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di jagleen nuyoo nag te moo waroon a jëkk moo waroon na mujj suñ mbokki sëñ daara yi di leen nuyu di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen waxal ne leen ne yokku leen a góorgóorlu ak yokk taxaw sëñ ma sax yi wax ne daara xiif du ko tas mar du ko tas rafle du ko tas tumuranke du ko tas feebar du ko tas ñu ngi xeex daara du ko tas ñàkk jàng rek mooy li mën a tas daara kon nag loolu la ñuy suñ soññ suñ bopp diriñ soññ ak lu mënti am nañ yaakaar yàlla ak lu mënti am nañ doyloo yàlla ak lu am nañ wéeru ci yàlla ndax moom rek mooy ndimbal moom rek mooy ndimbal moom rek moo am ndimbal ndax at mu nekk wax leen ko sëñ ma saxir day dimanche ca yor-yor sëñ am na yaay yaay yaay koo xam ma saxir génn àddina ñu toog dimanche boobu dimanche mu xaw a day am ndax gan sëñ Maxtaar ne ko ma ngi bëgg naaj de mu ne ko ci lan fekk man yabaloon na mu démb non da ngay jiitu ci. mu ne ko ci lan mu ne ko ndax ma ngi bëgg naaj ndax dëj ba mu ne ko loolu taxu nu foo di jëkk jàng ak jàngale moo nu fi taxoon a tëkk suñ dañuy nekk ba mën ko rek doog koo def ñu toogaat ba yàgg ci même jotaay bi sëñ Maxtaar a nga nee di ma dégg ne ko man de am naa njàqare ak tiitaange ndax kër gi li fi nekk lépp matul matul ñetti bëri koy ceeb ña a ah, sax la ñetti saakuy ceeb a fi des sëñ ma sax yi ne ko ana yàlla ama sax yi day du jàq du tiit ndax wóor yàlla dina ko dimbali wala yàlla dana ko muy dimanche ca mu daanu feebar altine talaata ba ca suba ñetti oto ñëw fi bii trente tonnes ceeb bii trente tonnes yu def diw bii quinze tonnes yu def meew quinze tonnes yoo xam ne nii yàpp bi nga bi nga da ngay tàngal ndox rek def ci la andi ko ne daara jëkko andi fu mu jógee ñu ne ambassade bu Italie moo ko joxe te nuñ demuñu fa waxuñ leen binduñ leen mu wóor ne oto yooyu benn diggante Louga ak fii tase nañoo koor bi muy ñëw nga xam ne keroog lañ ko taftal lañ ko taftal te loola ci lañ ko jël keroog bañ tollee ci sang di ko sang di ko defar la ambassade bi yebal ñaari ñaari ñaari ñaari nit délégué leen ñu ñëw man nii la leen sëñ Maxtaar boole ma dugg wan leen magasin wan leen ñëpp ne leen li ngeen yóbbu lépp ñëw na de waaye nag ki jiite woon liggéey bi day moo génn àddina moom la ñu waajoon nii ñu ne ma qu'importe noonu dañ doon joxe ndimbal rek sëñ Maxtaar ñag nee na booba la noppee jàq booba la noppee tiit amatul lu muy jàq amatul muy tiit ba fii ñu toll nii xale añ jotul ñu ñàkk añ réer jotul ñu ñàkk réer ndékk jotul ñàkk ndékk te lépp ndimbalal yàlla moo tax doyloo yàlla rek wóor suñu mag alaaji Lamine Lo mu baax ma keroog ba fi sëñ ma saxit jóge ca ay bis mu ànd ak alaaj ji li ñu jaale si dafa am lu mu wax sëñ Maxtaar te sëñ Maxtaar nee na nit mosuma wax lu mel noonu te góomu ne nit dana ma ko ma sa waxati mbokk alaaj ji li ñoo bokk oto bi mu demee ba ba alaaj dugg daa des gannaaw xëcc diis jàpp lu mbubb sëñ Maxtaar mi ñodd ko mu topp ko mu ne ko wax ji bari na coow ji bari coow li bari na waaye kasa bàyyi sukkandiku woon kam wéer woon mu yàlla wéeru ci waaye bu wéeru ki nit de ndax nit day am ba yàgg duutu am wala mu wala mu am ba yàgg mu mu mu faatu wala ñàkku ko sax waaye joxatu la ko moo tax alaaji aas lii nga taxawal gannaaw bañ la santee gërëm la ci li ngay def lépp te xooloo ko bëggoo dara ma di waxal ne la milliard bi ngay wax ci ci wa jaay duug doyul de ndax restaurant bee ñu taxawal fi mu toll nii li ca demagul mat na deux milliards te dañu yaakaar ne un million dana ko un milliard dana ko defar te daara ji moom li mu bëgg bëggu yem ci boppam waaye daa bëgg a yor daara yëpp loolu moo doon mébut sëñ ma saxir moo tax wa jaayi duugi ah nga la gaañu def leen ci seen alal def leen ci seen alal man de loolu moo moo gën a dal sama fit man mii di wax de man day def naa ci sama alal waaye yomal xiyaam jot ñu ne lañ doon taxawal ngir daaray kokki yow ndax da nga koo déggul woon ak loo ci def ak foo ci toll ah dañ ci def suñ alal nañ ci def suñ alal ña ngi dellu nuyu jabootu jabaatu Abdou Rahman yëpp di delluwaat di wax nag sama bopp sama bopp laay ak njaboot gi nga xam ñoo yore liggéey bi fu teeku jot na de taxawaay jot na de te it nag sëñ Maxtaar mais moom wàcc lim man ak lim mënul mu koy def ñun ñëpp moo ñu mag ba mën noo jur waaw waaw jërëjëf moo nu mag ba mën te moo nuy mujj a nu jëkk a jóg te ba fi sëñ ma taxit jógee ba léegi xottiwul mbubb sa mbokk soxna Fatou Diané sa mbokk soxna Yacine ma ngi ci mbooloo xotti na sëñ Maxtaar même mbubb muy mbasee mu ñaw ko ba mel na ma a mel te toujours ci teraanga yooyu ci la dëkk dégg sëñ bañ ko ko joxee ne ko yaati na ko jox mu ne cey rafet na baax na da waaye ak a neexoon mu doon ab ci nii a def ko ci daara moom ma nga ne joxe na bakkanam joxe na njabootam joxe na ruwaam joxe na lépp kon nag nan lañ war a def nan lañ war a def nan lañ bara def dama ne yéen xale yéen lay wax taxaw leen taxaw leen taxaw leen lii ndono la loo xam ne nii mu nee su la am ko gën mu nee su la am du ko gën a baax te li ma ne wàcceel billaahi wallaahi tallaahi laa wax ne képp ku ci taxaw te def li nga war a def te nekk ni nga war a nekk wax ma la doo am la warut a am de waaye la war a am daa la ku ci taxawul nag wan ko gannaaw nag wala adduna tax laa jóg wala dara ci tax laa jóg wala dara tax laa ya yaa xam. man fàll man de li may euh, waat ci yàlla ne mooy su fekkee ne alal la yoo xam su ma ko amee dana tax ba doy di liggéey wala muy njaboot wala muy li ma tudd ci àdduna yàlla naa ko ñàkk soo laajee sama bakkan sax sama bakkan na dem nañ góorgóorlu sëñ ma saxiir wàcc na sëñ ma saxiir wàcc na sëñ ma saxiir wàcc na sëñ ma saxiir wàcc na ñun ñoo ci des waaw su fekkee ne ab bërigo la boo war a bërën ñu bërënal la ko ba tegal ko ci tund bi ne la àggaleel dañ laa wax teg ci sa loxo rek waaye doo ci tus dañ laa teg waaye doo ci tus lu fi am rek kooku liggéeyoon moom dem na kenn ci ñun du ci dara kenn bu kenn ci ñun dóor dënnam bu kenn naan man nangam doo ci tus man duma ci tus keneen du ci tus li ñu war daal mooy taxaw suñ taxawee daal te nekk dañ war a nekk lépp dana kon sëñ ma saxiir ay gis-gisam ak xalaatam ëppoon na fi ñu toll fii ñu toll la ñëpp di ko naw ak di ko yëngu waaye xalaatam ak bëgg-bëggam ëppoon na foofu kon nag ñu ngi delluwaat di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp tamit suñu dellu ci jàmm yàlla aar daara yàlla yàlla aar daara yal na yàlla aar ñoñ daara yal na yàlla gën a dimbali daara yal na yàlla gën a taxawal daara yal na yàlla gën a kañ daara ba mu jëm ca kanam résultat yi daara di am yal na daa résultat yooyu gën a yokk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ sëñ Bas. sëñ Bas. muy tawfeex ju rëy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 woote 77 251 04 05